sëriñ Basiiru Mbàkke sëriñ Basiiru Mbàkke mi ngi feeñ jamono ci atum 1895 ci suuf sii nag di kokki ci tool yii nag di galeyel ci at moom nag la sëriñ Basiiru Mbàkke ibnu sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul feeñ jamono di doomu ko baax ki sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul ak ku ñuy wax soxna Faatima Dumaan Jóopa moom sëriñ Basiiru Mbàkke nag am na ko mbokkal kii di soxna Faatima Dumaan Jóopa ñu man cee ràññee rakkam ja soxna Xadijatu Mbàkke bintu soxna Faatima Dumaan Jóopa bintu Xaadim Rasuul ak moom Cheikh Mahamadul Basiir Mbàkke ibnu xaadim rasul ibnu soxna faatima du maan Diop kon cheikh mahamadul basiiru mbàkke nag kenn rek la bokkal waajur wu jigéen ci mbooleem njabootu xaadim rasul gi muy soxna xadijatu mbàkke bintu xaadim rasul soxna xadijatu mbàkke moom sax bi matee dem kër ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasul moo ko jox sëriñ muudu abib mbàkke moom maam ci wax na ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru waaye soxna xadijatu mbàkke jutu faa amug njaboot laataa mu fay amug njaboot nag ci loxoy sëriñ muudu abib mbàkke moom maam ci wax na ibrahima faati mbàkke ndaamal laataa sax ñuy xuus ci mbirum sëriñ Basiiru Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ñu wax leen nag lan moo tax mu feeña jamono ci suuf soosu nag di kokki ci tool yooyu nag di galayel bi sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag di dem ci géej gi la wax waajuram wu jigéen woowu di soxna du Dumaan Jóob ngir mu dem nag ci kokki ci tool yooyu nag di galayel xaar ko fa nag ba mu ñibbisi ci géej gi ndigal loolu nag la sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul joxoon soxna Faatima Dumaan Jóob ngir mu dem ko nag ci kokki tool yooyu nag di galayel ci loxoy waajuram nag soxna Xari Jeng liggéeyum sëriñ tubaa xaadim rasool mi feeña fa jamono boobu itam mi ngi fekk ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasool di doog a dem ci géej gi ginnaaw buñ ko yëgalee ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasool di ko wax ne soxna Faatima du maan Jóob nag am na gan sëriñ tubaa xaadim rasool nag mi ngi doon wax nag ci lettre bu mu bind gan googu soxna Faatima du maan Jóob am nañ ko tudde nag ngeen gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam ci turóom wii nag di Muhammadul Bashir dañ wutal ko nag lu ñu sunnaale nag tur wi saa bu ñibbisee nag ci loxo yi mu nekk nag dana fay bindaatoon nag ndaw ya lettre bi nag soo demee ci fii ñu denc cheikh mamadul basir mbàkke ibnu ko baax ki sëriñ tubaa xaadim rasul daa fa fekk lettre ba njaboot gi ñoo doon sàkku ci ñun ñu bañ a jàng lettre ba lool moo tax jàngaluñ leen lettre ba ku ci am nag lenn looy sikki sàkk soo demee fii ñu denc ma cheikh mamadul basir mbàkke daa fa fekk lettre boobu xaadim rasul bindoon ngir di wax ne nuñ ko wutal lu ñu sunnaale cheikh mamadul basir mbàkke ndax dafa nekk ci ay loxo te saa bu jugee ci tukki bi nag dana fay bor ba man mii di abdourahman gis naa lettre ba teg naa sama bët Serigne Touba Xaadim Rasul nag wéy nag dem ci géej gi ba ci atum 1897 ci atum 1897 boobu la jàmbaaram ja Cheikh aadama Guèye génn àdduna rakku jàmbaaram ja di Cheikh baabu Guèye bindoon ab lettre ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasul di ko xamal ne sa jàmbaar ja sa taalibe ba njëkk a ci yow génn na nag adduna ci atum 1897 bi kaamilub alxuraan nag la ko booleeloon kaamilu alxuraan boobu nag ku ñuy wax sëriñ Ibrahima Silla moo ko bindoon jaay ko nag kii di Cheikh ma baabu géy ci la seex ma baabu géy nag jël kaamil boobu nag boole kook lettre boobu nag yónnee ko ko baax ki sëriñ tubaa xaadim rasool ci géej gi ngir di ko yëgal làquk cheikh aadama géy sëriñ tubaa xaadim rasool nag bindaatoon na lettre kii di maam cheikh na ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ngir di ko wax ne saa bu jotee nag ci lettre bi ak kaamilu alxuraanam bii mu ko yónnee nag na ko jox nag kii di sëriñ ndaam abdourahmaan loo saa bu cheikh mohamadul basiira ma mii matee dal nag lii di alxuraanul karim nañ ko ci dalal alxuraanul karim dañ jox ko sëriñ ndaam abdourahmaan loo karim ci kaamil boobu mu yónnee woon nag ci lañ dalal nag kii di cheikh mamadul bachir nag alxuraanul karim ci loxoy sëriñ ndaam abdourahman loo sëriñ tubaa xaadima sóor nag wéy nag nekk ci géej gi ba ci atum 1902 ca fukki fan yaak benn ci mois de novembre mu wàcc nag ci waaxu ndakaaru jaar ndar géej luga loo bari jàmm siise sànnoosi ba nim egsee nag ci daaru salaam daaru salaam daaru marnaan bi sëriñ tubaa xaadim rasool nag di jóge daaru salaam di ñëw daaru marnaan nag jaar na nag ci kër sëriñ ndaam abdourahman loo foofu itam fi la gisee ak cheikh mamadul bachir mu nekk ci loxoy sëriñ ndaam Abdourahmane Lo nag muy jàng nag lii da alxuraanul karim ginnaaw sëriñ ndaam Abdourahmane Lo mi ko jàngal alxuraanul karim jaar na itam ci loxoy sëriñ Ibrahima Binta ginnaaw loxoy sëriñ Ibrahima Binta ci wàllu njàng dem na itam ci loxoy sëriñ Hababakar Jaxate ñu gën koo xam ci sëriñ Mbay Jaxate ci xuru Mbàkke ci ñett ñii nag la sëriñ Basiiru Mbàkke jaar nag ci wàllum njàng ginnaaw bu waajuram nag ñibbisee amaan na fi takk-takk ak tubaab bi ñu yóbbuwaat ko nag ci réew mi nag di gànnaar gànnaar googu nag kii di Cheikh Mamadul Basiir nag ibnu sëriñ Tubaa Xaadim Rasul demu nekkee nag gànnaar mu wéy nag di jàng ci loxoy nag mag ñii ñu leen limal ba ni sëriñ tubaa xaadim rasul jógee gànnaar ginnaaw gànnaar nag ca yéen jolof ca yéen jolof googu itam cheikh mamadul ba tey rek mi ngi wéy di jàng ginnaaw ca yéen jolof nag njaareem njaareem googu nag ginnaaw bu fa ko baax ki sëriñ tubaa xaadim rasul demee cheikh mamadul basir nag nekkoon na fa nag ci loxoy waajuram di sëriñ tubaa xaadim rasul sëriñ tubaa xaadim rasul itam nag daana ko jàngal nag ci njaareem nag moom doomam jooju nag di cheikh mamadul basir waaye ginnaaw gi nag cheikh mamadul basir nag xamoon na ne ku baax ki sëriñ tubaa Tuubaa Xaadim Rasuul nag am na yéene ci lool ci moom ngir jàngal ko waaye jotam ak kàttanam nag muyutu ko nag mu di ko jàngal loolu nag taxoon na nag kii di Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke nag fobu nag ci ndigalul boppam dem nag ci réew mi nag di gànnaar ngir nag sàkku xam-xam comme nag ni ko ñëpp amee ginnaaw bu mu demee gànnaar ci ndigalul boppam kii di ku baax ki Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag yëg na ne doomam ji nag di Cheikh Mamadul Basiir nag dem na gànnaar loolu itam nag taxoon na ku baax ki Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul yónni ay nit ngir ñu dem nag gànnaar jële li ko doomam jooju nag ñaari nit nag ngir ñu jëlili ko doomam jooju nag di Cheikh Mamadou Bassir Mbacké ci réew moomu mu nekk nag di gànnaar muy kuñ doon wax nag Maxtaar Mbuupa ak kuñ doon wax saa ñebbe jaañ Maxtaar Mbuub mi nag taalibeb Cheikh Massamba Mbacké la mi rakk ko baax ki Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ñoom ñaar ñooñu nag ñoo demoon gànnaar jëli kii di Cheikh Mamadou Bassir ñu ko wax na sa waajur woo nee na nga ñibbisi ginnaaw bu Cheikh Mamadou Bassir nag ñibbisee nag ci réew mi nag di Sénégal ci dëkk bi waajuram nekkoon nag di njaareem Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag doon na ko laaj nag Mouhamadoul Bassir lan moo la taxoon a dem bëggoon xam-xam na comme ni ko ñëpp amee lool rek laa yuuti woon gànnaar nag ngir di ko sàkku sëriñ tubaa xaadimu rasuul nag doon na ko wax ne toogal fii nag ci sama wet danaa la defal nag lu gën jàng bi seex mamadul basiir nag wéelee ndigal loolu ko xaadimu rasuul waxoon lenn nag ci naar yi nekkoon gànnaar ak ku baax ki sëriñ tubaa xaadimu rasuul daanañ jógee gànnaar nag di ñëw njaareem nag di seet si ku baax ki sëriñ tubaa xaadimu rasuul ci diggante boobu nag ñuy am njaareem nag di ziyaar si sëriñ tubaa xaadimu rasuul ci diggante boobu itam daanañ ci jàngal nag kii di cheikh mamadul basiir ba tax na cheikh mamadul basiir nag nekk na ku géejoo géeju nag ci wàllu jàng ak njàngale laataa ko baax ki sëriñ tubaa xaadim rasool sax di génn àdduna ci atum 1927 waajuram xaadim rasool boole woon na ko magam di cheikh mamadul moustapha mbàkke di leen wax ne damaa bëgg nag ngeen booloo nasoo te xool nag lépp lu jëmale yoon wi kanam ngeen ànd def ko taxoon nag kii di cheikh dul basir mbake toppoon nag ci ginnaaw cheikh dul moustapha mbàkke bañ koo def mag waaye def ko sëriñ ak kilifa ba tax na sax bari na ci taalibé cheikh mamadul basir yi yu jébbulu woon ci sëriñ basiru mbàkke da leen a faboon ci jamono jooju nag Mbacke taalibe yooyu Cheikh Mamadul Bachir Mbacke jébbaloon kii di Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke ñu mën caa ràññee ñaar ñoo xam ne ni nekkoon nañu ay jëwriñ ci daara Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke yi ku ñuy wax sëriñ Ousmane Seck ak Baye Ma Cissé Diop Baye Ma Cissé Diop mii nag moo jur sëriñ Basiru Diop minigé ci Touba Daarul Minnan nekkoon nañ nag ay jëwriñ nag ci daara Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke yi ci njaareem googu la ko ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasul nag jox nag ndigal nag mu dem sanc nag ay dëkk nekk fa nag di yar di jàng ak di jàngale ba tax na nag kii di Cheikh Mamadul Bachir sanc na nag ak dëkk yu takkoo takkoo takku ci nekkinam sanc na dëkk bu ñuy wax ummul xayri ñu gën koo xam ci Touba Daaru Salaam Touba Daaru Salaam googu nag mi ngi ci wetu kayeluk Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ba tey itam sanc na dëkk bu ñuy wax Madinatu Salaam Madinatu Salaam gii nag mi ngi ci wetu dëkk bii nag di Sookoon sanc na itam nag dëkk bu ñuy wax Touba Mbul Kayal sanc na dëkk bu ñuy wax Buleel Buleel gii nag mi ngi ci suuf si nag di Saalum sanc na itam nag dëkk bu ñuy wax Pël Mbàkke Pël Mbàkke gii nag mi ngi ci suuf si di Bawal ci wetu dëkk bii nag di Mbàkke Bawal sanc na itam nag dëkk bu ñuy wax Tawfeex Xayga sanc na itam nag fu ñuy Bourkougne fii itam di Gosaas itam sancoon na ko wala sanc na fa fii ñuy wax bustaan itam nag Cheikh Mamadul Basir nag moo ko gor ci suuf su sell si itam nag di Touba quartier bu mag bii nag ñu gën a xam ci sura kii di Cheikh Mamadul Basir nag ibnu Serigne Touba Xaadim Rasul nag moo ko gor tudde ko sura man raa ginnaaw quartier boobu mu gor ci Touba di sura man raa Cheikh Mamadul Basir itam nag dëkkaatoon na fii wuuf jumaa ji di kër Serigne Ibrahima Mbàkke ibnu Serigne Touba Xaadim Rasul ñu gën koo xam ci kër Serigne Daam Atta ginnaaw bu ñu nattee dëkk bi nag la waxtaan ak Serigne Daam Atta mi doomam mu dëkk ñu mag moom ba tey ci sañtub cheikh mamadul bachir ibnu sëriñ tubaa xaadim rasool quartier bii nga xam ne nii waajuram moo ko goroon sañcoon ko di daarul minnan quartier boobu itam nag ci loxoy cheikh mamadul bachir mbàkke la mujj ginnaaw bu mu laajee ndigal magam ji nag cheikh mamadul moustapha mbàkke ginnaaw bu ko ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasool goree sañc ko defoon na sax ñaari bëyit ci quartier boobu nag di tuubaa daarul minnan soo delloo ca waaye nag ma ngay wax ne suñ borom de may na ko ak goo xam ne nii ci dëkk boobu nag di daarul minnam nag lay bàyyi ko wuti nag àjjana ca ñaareelu way woo nag ma ngay wax ne suñ mayaat na ko geneen gaal goo xam ne nii day yab ay nit yabaat nag yeneen gaal itim ngir nag di déqee nag ci dëkk boobu mu gor nag di daaru min na wuti ajjana ñu teewlu way yi ab lii safinatan bi kun lil janna min daaratil minna ni yaasal minna aatiniyal markooba fi daaral minan hindatasin tadduxuli nii daaral minan quartier boobu nag ci loxoy Cheikh Mamadul Basir nag la mujj di daarul minan ba tax na itim foofu lañ ko denc di daarul minan Cheikh Mamadul Basir itim capital régional yi dëkk yi ci baree baree lañ tudde kër xaadim rasuul dëkk bi itam nag di Kaolack sancoon na fa ñaari quartier ñu mën caa ràññee Touba Bustaan ak itim quartier bi di Touba Ndorang dëkk bu sell bi itam nag di njaareem Cheikh Mamadul Basir am na fa kër kër gi ku baax ki Sëriñ Touba xaadim rasuul génnee àdduna di boqatul mu baaraka lenn itam ca kër ga ma Cheikh dul Basir Mbàkke moo ko moom dëkk bi itam nag di ma Cheikh Mamadul Basir Mbàkke am na fa kër ak yeneen nag yeneen i dëkk nag ci capital régional yi dëkku maamam bee soxna ja nag buñ koy fàttaliku di màggaluk poroxaan mu nekkoon itam ku am gis-gis moom Cheikh Mamadul Basir am gis-gis googu nag tax na mu nekkoon nag ku bari xam-xam ci atum 1937 woon na nag ay téerey xam-xam nag ci réew mi nag di Égypte bu téerey xam-xam yooyu ñëwee nag lii di autorité coloniale yi fi nekkoon nag téere yooyu nag bari googu mu bari nag yéemoon na leen nag ba tax nag ñu convoqué woon kii di Cheikh Mamadul yi mu commandé nag ci mi nag la koy doyee lii ci Cheikh Basiir Mbàkke ci diirub lu tolloog juróom-ñaari fan ngir di ko laaj nag lan lay doye yi xam-xam yii nag mu jëlee nag ci réew mi nag di Égypte indi ko nag ci réew mi téerey xam-xam yooyu nag ku ci soxlaa gis nag benn bu ci bokk soo demee nag fii ñu denc Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke ci bibliothèque bi nekk nag ci biir barab bi daa ko fa fekk ma mu dul Basiir Mbàkke nag ko bari woon xam-xam la bari xam-xam googu mu bari woon xam-xam nag tax na bind nag ay téere téere téere bind googu mu bind ay téere téere téere moo tax soo delloo ci marché bii ko Sëriñ Maalik Jëng nag dunduk Cheikh Mamadul Bachir Mbacke ni mu fonke woon xam-xam téere yim bind saalum gi nga xam ne moom lañ ko gën a miine te poroxaan nekk fa waajuram Serigne Touba Xaadim Rasul moo ko joxoon yéeme gum téele yéeme moom ma mu dul Bachir Mbacke fonk gum fonkoon ay magam moo xam ma Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke ba ci ma Cheikh Mamadul Faadal Mbacke yoonu murit itam nawloo guñ ko teel a nawloo ndax doomu Xaadim Rasul gi mu doon ubbeeku gum teel ubbeeku yemale ñëpp itam gum amoon ci jullit yi loolu lépp daal soo delloo ci marché bii ko Serigne Malick Dieng defal ma ko cay tudd teewlu ko def na ay téere tabax na ay jàkka sanc na ay njënne yu mel ni màkk xaalim la xaabit la murit saadix la borom basiira la te mbër kaamil la xaafis la xam na ngërëmal baayam baa mosul la juyoog sunna ngir yoneen ba xam na ngërëm ca mbër ma Hamdu Moustapha ca booba fu mu fa mos a toll teew na fa ba keroog mbër may fondement jumaa ja moo ànd moom jooja waay mooy waaja bambaa ko tërbiya tofal ko mbooloo yebal ko saalum pakke caar ña mbooloo mu jàll wéy ba sanc Touba ak saalum fu mu mos a yendu ña fa teew ni maalum def na Touba def na ay kër lu ko jiitu foo xam sëriñ Basiru Mbàkke xaw na ma maasam mbaakol ba biir Kajoor ba jàll Njaambur foo tudde aw turam ñu naa la mooy gor ku nekk naa la Cheikh Basiru nee na ma moo gën a daj jamono kooka waar na ma góor ak jigéen defal na leen teraanga dalal na seeni xel xamul yaraanga tabax na ay kër yu xajul ci way wii ci réew mi foofu dem sagal na yoon wi def na xalifa ngir ca nekku baayam la jukk na fekk dal di xam ay gaayam Cheikh Bamba féetale ko wàllu Saalum jëbal ko Hamdi Moustapha ab taawam ba Hamdi Moustapha defee xalifa moo doon loxoom te mu teew fa ba magi ba siiw na ci réewi Sénégal ci turu Hamdi Moustapha Nihmari ba Sidi Fàddilu defee xalifa moo fete woon Jurbel moromam dee fa ku nekk xam na sa ngërëm bil jëhri li usni sannihi bi xëyri nukri moo taarixal Seex Bamba moo xam mahraja leeral na seeni tur moo am daraja tagg na maaxuus abdudin nasman yufit min bax bismillahi seet ko yow murit ki léeg jawaabi Bamba xam nay seere yowmal xiyaam waaju ko sopp maare waaju ko noonu def defub Seex Bamba nga noonu ngir moo wilaya Cheikh Basiru Mbàkke ba Bamba nee Jolof sëriñ ba woo ko naa ko Basiru loo ko jox ma gis ko amoon na addiye ju génne woon Saalum weesu sëriñ Basiru jëm ca baayam seex Bamba daal di ne nangeen ko delloo jox ko Basiru jooju waaye du suulu mooy man tamaadi moom fu ngeen ko seeroo gis ngeen ma dong yépp bokk waaru lu yées fukk ak juróom-ñaar la xam wasoolu sëriñ basiru mbàkke maa ko wóolu nekk di xaarif ban ba daal koy jiital pexem borom tuuba bu leen ko juutal taarama semman na danay yaxooba sëttam yàlla nañ fawxa ñuñ yaxooba dekkal na poroxaan tabax na barab ba siggal na soxna jaara dekkal taal ba melow nawet la yor tawal na jéeri tawal na géej mbiram ya lépp biire lawet na doom foo ko gis mu ree la boole tabeeg ñami ba mel ni gar saay jullee buy digle daf koy gàttal te lépp ñu daaw ci rax ay gaaral na kaw ga mel la biir ba mel du jort ci ab jullit lu dul lu jub moo dikk borom jagle la te daawut jaglu woyof la ak toroxlu ak wakkiirlu moo dem mbiram te ku ko tooñ mu jéggal ku dof mu jokk la ku xat mu féexal daawul digal mag ña ko daa siyaare lu dul ragal yàlla ak njaboot ak maa rek xamul ku koy noonu ku ñëw mu fat la xamal la yoon wa loo ko laaj mu jox la fu ñuy jëlee ti mbër mu raw xasaali te xam ta suuf ba jiitu foofu yeddaali xekkam ba woon ca ko jox ba la naan ba géejal duyal na aw nitam ba ñëpp feesal samsul waraa teemkatu jaalu mbàkke sëpp seq na Mbàkke yow yaa teg Basiru Fatima du maam semmal na ñi jiitu woon gaa yi dogal ba wéy na ku mel ne moom dootu fi xam ba abada moo doon mbër ma mbër ma doonu ahmada xilman bilaa mu xamalin la ban ba waxoon sëriñ ba xii la jaajëf bamba ma wax la tuuti ci mbiram nga waaru ak i meloom njagam gisoo moo taaru fu ma sa jekki ñaare jublu la tey méng mel ni aw weer ko xam xorom la mag ak ndaw ak jigéen ku ñëw mu yaatal fajal la ay xëttéem ku weddi laajal durus kitaabullaahi lay fanaane waxtaani sang mbàkke lay la weeru ku la deeti gunge ak di ma nag lenn la ci marché bi ko sëriñ Malick Dieng defal moom Cheikh Mamadou Bassirou Mbacké ginnaaw bu mu ñu dëddoo ci atum 1966 mu nekk nag ku bari xam-xam bind itam nag téere yu takkoo takku ñu mën caa ràññee xasida gi nga xam ne Cheikh Mamadou Bassirou Mbacké bind na ko tudde ko Siin Saalum ginnaaw bu ko waajuram yabale ci suuf soosu nag di Siin Saalum metti waayu Siin Saalum jafe-jafe yu fa Cheikh Mamadou Bassirou Mbacké nag doon dund nag ca bam fay doog a dem xasida gu yaatu daal la bind nag ci suuf soos nag di siin saalum ñu teewlu ko bardi allahuma fil wa ansil rahmata wa sakina min ka xaleyna rabbi fiha wajhali harramaha mu aminan yan jihili wa kasiran xayratiha wa yassiri lana al umuur warfahan sikkari hutha wa ma min al masaibi mahal bala wa nukibi nawaibi madinatan hamiratan mubaraka zahidatan subla najahi salika salimatan min darari saytani min asal amiri wa sultani واصطحابه النجوم أبحى صلاة الله وسلامي والخوص قطب مالك الكرام وقال أيضا في تردد إلى الله بمناسبة الحرب العالمية الثانية إليك تجانا فاكشف البأس والضر عن الخلق واجعل في مكانه البشرى إلهي ومن نرجو نداه ومن إسى تحاصر أمر الهوى مسل لليسرى تقبل والطيب نفس عبدك بالذي يريد وحج فتحك الباب والنصر قد أقبل يرجو من جداك مواهبا لخلقك لا سالت مواهبه تدرى وسي أمة لا يسلكون bi rabbihim siwaahu walaa yarjoona fi amrihim xayra walaysa lahum in daqatul xallu manja'u ya ummoona fil bahsaa'i kallaa walaa darra siwaaka waxat axnaa zamaanu alayhimu fa sax si ilaahi hanhum hamma wa sohra karim mustajib warfah wa farij wathifan bi isbaaxi nuhma musbilan daa'iman sidra bi jaahi lasi maa saaxa an amri rabbihi fatilan wa maa haadat masaalikuhu sibra imaamil huda xawsi lanaami wa xaysihi wa muhi ramiimil hasmi bil faydi wa sigra qadiimi nabiil mustafa wa nasirihi kama a fi dunya hayati wa fi uxra alayhi salaama man bihi anqasal wara wa sarrafahu abdan bihi kaana qad asra ginnaaw xasida googu mu bind ci siin saalum Cheikh Mamadul Basir tim bindaatoon na ganeen xasida tudde ko safar soo delloo ci xasida gi nga xam ne nii moom la tudde safar ma ngi cay wax nag ngëneelu weeru safar ak solo soo xam ne nii nag weer wi nag di weeru safar am na ko nuñ war a fonke nag weer di weeru safar ngëneel yoo xam ne nii tim muri di am nañ ko ci الفرنسي الأبيات المباركة قالها سيد محمد البشير مباكي الطوباوي في تاريخ يوم محصن حي صفر عام جيسس الحمد لله حمدا لا انتهاء له على التفضل يوم الشكر في سفري يوما به استنهى الحبد الخديم له في جيسس حي هاسا سهر في سفري سير هو الصاحب الخيوم فيه ومن يسحب كان خليف النصر والسفر سدت جدود الهدى عنه البقاة فلم يهو لركن ولا أو لمنتصر لقى به سيد الكونين في سمر بالبيد والسمر والآس الحسال والصهر أسود بدر هما الدين يوم وخن تطوف كل ذي الخصم في سيبتر مبشر بإياب بالقتي من الله يخفى قفارا ولا يخفى من الدرر حي الإله مهيا طالما طلحت أنوار طلحته بالبسر للبصر وداها فالصلوات الناميات بلا حد على المصطفى بالآل من مدري ginnaaw xasida goog ngeen doon teewlu te Cheikh Mamadou Bassir nag bind ko nag ci weer wi nag di weeru safar ak ngëneelu weeru safar ba tey Cheikh Mamadou Bassir Mbacke nag bind na xasida guñ tudde baaxil xaddiim ci kàllaama damay araap xasida googu nag soo demee lu ta takkoo takkoo ko ci dunduk seexul xaddim ma nga ca lu takkoo takku itam ci dunduk mag ñi moo xam mag ñi toppoon ko baax ki sëriñ tubaa xaadim rasul kenn ku ne yow yaay kan ak fan nga jaar ba ñëw nag ci loxoy ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasul yen relation nga séqu nag ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasul gëstu bu yaatoo yaatu dal cheikh mamadul basir mbàkke def nag ci xasida googu ñu tudda mi ne ni baaxil xadim ngir di ñu wax nag yoonu murit naka la taxawe ak mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasul kenn ku lan nga séq ku baax ki sëriñ tubaa Tuubaa Xaadim Rasuul gëstu yu yaatoo yaatoo yaatu daal la Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke indi ci xasida googu ñu tudde minan ni baaxil xadim dëkkub Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke bi ñu tudde Tuubaa Bogo ginnaaw bu ko Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke sancee Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke itam defoon na ci nag ak xasida ngir itam di ñaanal Cheikh dul Faadal Mbàkke ci dëkk boobu am na itam nag feebaru pes bu fi amoon mag ñu baree bare itam ci yoonu murit bindoon nañ ci ak ñaan Cheikh Mamadul Basiir itam bindoon na ci ak ñaan ngir di sàkku suñ boroom feebar boobu jóge fii ko Cheikh Mamadou Bachir Mbacke itam def na ay seede ci ñoom ci wàllu mbind kon moom bindkat la woon nag ku fonkoon mag ñi la woon bindkat googu mu nekkoon te fonkoon mag ñi loolu itam nag tax na jàmbaari Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ji nag di Cheikh Moussa Ka def na itam nag ay bayit nag ci Cheikh Mamadou Bachir Mbacke ci féete googu mu féete woon Saalum ñu teewlu way yi ci Cheikh Moussa Ka def asalaamaaleykum yéen murid ci Saalum yi nuyu leen ma xutbub réew ma naatal na Saalum yi fa busra lakum fii kulli waxtin wa saaxatin dëkkoo ngeen mbégum islaam ji yaa asla Saalum yi basiroo niroog baayam ci saahir wa baatinan ku gis kooka gis kii xam ne bambaa nga saalimi mu nekk nag ku am xam-xam moom cheikh mamadul basir am xam-xam googu nag taxoon na képp koo xam ne nii am nga xam-xam ci réew mi seex ma cheikh mamadul basir defoon na la soppe ak xarit loolu itam moom moo taxoon ginnaaw bu fi seex mu dul moustapha mbàkke bàyyi ko mu jël sëriñ abibu mbàkke imaam yóbbu ko woon tiipa ba tax na ñu baree baree baree bari ci sëti ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasul jaar nañ ci loxoy cheikh mamadul basir mbàkke ngir mu jox leen sëriñ abibu mbàkke imaam jàngal leen xam-xam ak jàngale nag la fi nekke ba nu fi waajuram bàyyikoo nag ci atum 1927 mu jël léppam nag jébbal cheikh mamadul moustapha mbàkke ndigal li ko cheikh mamadou moustapha mbàkke njëkk a jox bi fi xaadim rasool bàyyikoo mooy mu jële xaadim rasool njaareem indi ko nag ci dëkk bu sell bi nag di Touba bi ñuy gas raay bi lépp lu nekkoon ndigal ci loxoom nag la ko ma mu dul moustapha mbàkke tegoon ba tax na nag moo nekkoon jëwriñu raay bi ba ni mu eggee bi ñuy teg xeeru jumaa ji cheikh mamadul basir mbàkke itam nag fekkee na ko moo di cheikh masamba mbàkke ndax kan moo nekkoon droit cheikh mamadul moustapha mbàkke lépp luy wàllu administration ci yónnin yu baree baree bari cheikh mamadul moustapha mbàkke cheikh mamadul basir la ko daa yónni mag ñi itam nag suñ masaa am nag ak réeroo loolu itam nag cheikh mamadul basir la ko cheikh mamadul moustapha mbàkke daa yónni kenn itam ci mag ñi bu fi masaa bàyyi ko cheikh la koy yónni taxawu ginnaaw mag ñi itam kii di cheikh mamadul basir cheikh mamadul moustapha mbàkke daa yónni kon lu baree baree Moustapha Mbacke loolu itam tax na ñu daa wax Moustapha moom mooy magi bas loolu itam tax na njabootam gi ñu ci baree baree baree bari ci loxoy Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke la leen tegoon rawatina na kii mu tudde Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke di sëriñ Moustapha Mbacke Bachir ci loolu la sax topp nag ci ginnaaw magam ba ni fi magam nag bàyyi ko di dul Mamadou Moustapha Mbacke mu jël léppam nag jox nag magam Cheikh dul faadal Mbacke di ko xoole nam doon xoole Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke wala nu ko raw lépp loo xam ne nii nanguloon na ko Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke mu nangul ko nag kii Mbacke ba tax na itam fi mu féete woon Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke foofu itam la féete woon Cheikh Mamadou Fadal Mbacke loolu itam tax na nag kii di Cheikh Mamadou Fadal Mbacke tudd na doom Cheikh Mamadou Bassir Mbacke kii di Cheikh Mamadou Bassir Mbacke itam tudd na doom Cheikh Mamadou Fadal Mbacke ndax Serigne El ma Mbacke moom Cheikh Mamadou Bassir mi ngi fi te Cheikh Mamadou la ko tudde magam Cheikh ma Lamine Baara Mbacke ku jeexoon tàkk la nag ci rakkam ji nag di Cheikh Mamadou Bassir Mbacke loolu itam nag tax na Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke tudd na ñaari yoon doom kii di Cheikh Mamadou Bassir Mbacke ibnu Serigne Tuubaa Xaadim Rasuul ndax bëgg ak cofeel gum am ci moom ba tax na bi mu génnee àdduna ci atum 1936 moom Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke Sëriñ Basiiru Mbàkke nag la wax ngir nag mu dem taxawu magam jooju rakkam Sëriñ Abdoulahi Mbàkke borom dër bi itim tudd na itim nag magam jooju doom rakkam Sëriñ tuba Cheikh Abdou Lahad Mbàkke ku fonkoon magam jooju la di Cheikh dul Basiir ba tax na tudde na ko doom rakkam Sëriñ Abdou Xaadir Mbàkke ibnu Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul itim tudde na magam jooju doom loolu itim tax na nag bi mu génnee àdduna ci atum 1966 rakkam jiiri sëriñ tubaa cheikh abdou xaadir mbàkke moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam ci péncum boppam moom nag di daarul minnan rakkam sëriñ tubaa cheikh saalihu mbàkke itam tudde na nag magam jooju du cheikh mamadul basir doom rakkam sëriñ soye bu mbàkke tudde na magam jooju nag du cheikh mamadul basir doom rakkam sëriñ murtada mbàkke ibnu xaadim rasool tudde na magam jooju doom tax na képp kum bokkal xaadim rasool tudde nga doom kii di cheikh seen mag jooju di cheikh mamadul bachir mbàkke mag ñi toppoon ko baax ki sëriñ xaadim rasul ñépp amoon relation nag ak kii di cheikh mamadul bachir cheikh mamadul moustapha mbàkke nag ci loolu la ko tàggatoon ba tax na cheikh mamadul bachir daawul toog daawul yendal daawul fanaanal saa nag mi ngi dox nag diggante mag ñi loolu itam tax na nag mag ñu baree baree baree bari ginnaaw bu fi xaadim rasul bàyyi ko ci loxoy cheikh mamadul bachir la ñu mujj cheikh mamadul bachir kan melokaanam ak jikkoom loolu na nag ginnaaw xaadim rasul mag ñu ci baree baree bari ci cheikh yi ñu ngi ci loxoy wala njabootu Cheikh Mamadou Bachir ci biir mag ñooñu nag ñu mën caa ràññee ku ñuy wax sëriñ Abdou Karim Touré moom nag def na ay way sax ci kii di Cheikh Mamadou Bachir Mbacke ngir di ko kañ ak di ko tagg ci jikko joo xam ne nag Cheikh Mamadou Bachir Mbacke nag am na ko ndax soo demee ci biir waya ma ngay wax melokaanu Cheikh Mamadou Bachir jikko ju Cheikh Mamadou Bachir amoon njariñ itam lu Cheikh Mamadou Bachir amaloon askan wi taar bu mu taaru woon xasida gu yaatu daal la sëriñ Abdou Karim def ci jàmbaaram jooju nag mu toppoon ginnaaw Xaadim Rasuul di Cheikh Mamadou Bachir Mbacke ñu teewlu ko am diili rabbin am diili فيه أنوار وأفار وسقه قصه منان سطار قلبي بهاء ورب العرش سامع أملاه سوقا وما لقلب بطار ذاك البصير لسي يا ليت يلحظني من جوده سائق تحويل ينفار ما كان للناس بعد المصطفى صدم هم سوى البصير لسي قطاف أنوار شيخ كريم جواد صوتقا وره طب لبيب وصوبال وصبار قرن شقي لطيف سوء سند أون اليتامى على الأهداه جبار أخبار له مكارم ما لا يهتوي قلم بعد المروبة ما لم تحي أثار شيخ عليم عليم واسع سند برم أطوف لأسماء الله الذكار إن كان للشيخ من قد جاء وارثه ذاك البصير الذي جدواه مدرار إن كان للشيخ من قد جاء وارثه ذاك البصير الذي جدواه مدرار نهم البكي مجير مستجير به وليس أن وهده للناس قبار فالصر بسيرا بإيقاد لقالقنا إن أن المعيب لمن أحب الزوار كونوا معا باجتهادي سائرين له ولتعلموا أنه اسم وأسوار للمهتدين بصير والقضاة معا نسير أم وهو لله داء قعار من جاء سيقية للممنوع مخعما جاءت له من رئيس القوم أموار أم سالم وهو سوء أصل ومرحمة لكن ما عنده ملك وأسرار قد قدت يا شيق بحرا عند سائله أخيار جيلك يا سلخصر مختار من انسك xawliya fal yajlis makaanaka fii njaarimi ya'lam bi anna allaha shattaar ginnaaw xasida gu am solo googu kii di sëriñ Abdou Karim Touré defoon nag ci jàmbaaram jooju nag di Cheikh Mamadou Bassir Mbacke ba tey itam sëriñ Abdou Karim Touré bindoon na lettre Cheikh Mamadou Bassir jaarale ko nag ci ay way di ko wax nag jafe-jafe nag yu muy dund ginnaaw bu fi xaadim rasul bàyyi ko dafa am diggante boo xam ne nii nag dafa metti woon lool ci moom taalibe yu baree bari dañ daan nàng faw maanaam dem te duutu leen gis wala mu am taalibe yu baree bari daal dañuy dem ba am ci ñoom yaakaar ñu Mouhamadoul Bassir Mbacké nag la yaakaaroon mu bindoon ko nag ab lettre jaarale ko nag ci ay way di ko dagaan nag jafe-jafe yooyu muy dund nag mu mën a saafaraw ñu teewlu lettre ba wala ñu teewlu way yi ci sëriñ Abdou Karim Touré defoon totubnu seyxi wa ma litaaruhu jaala fi lqalbi asa wa ahla surbatan usila qad dihtara min naqimaati lwara kaaban usnan sadidan walaw laa matuhu qutila ahsani alyawma xawfi min firaqiya ma jamaatuhu min iyali wa fini awala ma jaakum qattu muhtajun lahu watarun ila annaala lahu rabb الورى نعلا أريتك اليوم أبياتي لتعلم ما في القلب من نية يا خير من بثلا ولم أرد نصرة الأبيات ناسيا قل ارتخي بعد مهل الفقر منقذلا عليك إن جاس ما لي شيق قد وعدا كم من موائده يا وارثا قبلا فاطلب لي الله مما في قفائنه ما ينقل الفقر والوخفاء والوجل بايعتك اليوم بيئا لا إقال له خدم مريدك هافا واخبل العمل اسمني الأهد توكيدا يجدد ما بيني وبين خديم المستوى كملا فلا عليه مع تسليم مرسي يرسله مع أمره بدره قد جاء وانبسل يا شيخ يا شيخ يا من نال رتبته إسبا تلادا أني المير والعمل ولست شيخا لدودا لا دسالمه يا كاسم القيس يا من سبقه أقل لكن لدى الله ما لا يهتي خلل للكاسم القيس والمولى لنا بجل إني لعبد لرب العرش مالكنا مستمسكا ببشير ابن قديم على وارفع جنابي وارلي من يسير مني ولتجمع السمل والطف بي وزل أولى قد جاهني أقف إرحابا إليك فراري لا سواك أقفني لا يا مقفا ولا أنا اختبابك ركبي اليوم خارئه فلتفتح الباب لي فلتطفه القجل جد لي بما فاخ ما قد فاقه هرم إلى زهير ولم أكن عليك كلا اخترتك اليوم من سرب القيار مهن وليس سنيا فغيب هناك فلا قد أست ما أست من مجد ومن شرف ومن تقى والهدى والجلو ما أفلا الحمد لله لما جاز لي كرما بأخذ سيلك ما أوصي ما قبل في القاتئا وقت من يهرمك يا ثقتي أن سالمي وصفها ساسيمة الفضلاء وهم بهم جاءت الأرساخ ناسلة من ربنا للورى والكل كم كملا ما تدهوت إلاه الأرس من عصن بهم يجبك إله الأرس من دولا بسا دهوتك يا خوص الورى حسنا يا ابن خديم فراس الجوف ما سئل فابأس إلهي بإرسال رسولك ناقصا ضمائر إسخاليا منتعلا إن يحسدوك فإني خير لائنهم من كان مثلك يبقى فاك من فضلا لا يمنع البغض سمسا من طلاء يأتيها مهل السما لمعاد الأرض قد فعل ورث من بهد ما أبوه ارتفها ولا يكون إلى ما الله قد فعل أهلاك مولاك يا شيخا ألوس به فخص بيدي من أخدامهم عجلا كنا في صف وقد بايعتكم كصصا لدى سنوس وصى بالعبد موؤسلا وفا قليل لمن يبقي أولى بردا رب الورى مرسل المختار جلالا فلا وسلم رب الحرف مالكنا عليهما اسبه والخير جعلا kii di Serigne Modou Sow Ba bokk itam ci mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasool wólla réew sëriñ mouhamadul bachir mbàkke la woon taxoon na kii di sëriñ moodu sow ba tudde woon na ñaari yoon doom kii di cheikh mamadul bachir mbàkke ak ñeneen nag ñeneen ni mag nag ñu amoon relation nag ak kii di cheikh mamadul bachir mbàkke yoonu murit bari na ay mouhamadul bachir te ñu ci takkoo takkoo takku nag cheikh mamadul bachir mbàkke lañ leen tudde wala kañ leen tudde cheikh mamadul bachir mbàkke lañ ko tudde ndax kenn ku ne ci mag ñi bëggoon nga sam basiiru mel ne basiirum xaadim rasul ci gàttal daal buñ fi nekkee di bëgg a lim bépp mag mu tudde mu dul bachir mbàkke doom doom daa juum bépp basiiru mu ngeen gis ci yoon wi mën nañoo wax ne mu dul basir mbàkke lañ la tudde wala kañ la tudde kañ ko tudde cheikh dul basir lañ ko tudde ndax doxiinam ak melokaanam lii di jumaay njaareem itam nekkoon na fa imaamu nag julli korite nag ak lii di tabaski loolu itam tax na danañ barkeelu nag ci génn julli goo xam ne ni cheikh mamadul basir mbàkke nag jiite na ko lii di julli tabaski ci jumaay njaareem jooju ñu teewlu ko الله أكبر الله أكبر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 لتبصرن الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله Oh الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب السكينة من طعامها إنها دساها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقناها فكذبوه فأنكروها فردنا دمهم بذنبهم فسوها فلا يخاف عقباها الله الله أكبر الله

ci imaam googu itam nag la sax ba nim génnee àdduna ci atum 1966 Cheikh Mamadul Basir Mbàkke ibnu Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag mi ngi génn àdduna bisub altine fukki fanak ak ñaar ci weer wii nag di rakk ji gàmmu ci atum 1386 ci gàddaay gi altine fukki fan ak ñaar ci weer wii nag di rakk ji gàmmu ci atum 1386 ci gàddaay gi dëppoog muy lundi 1er août 1966 lundi 1er août 1966 ci këram gii nag nekk nag ci Tuubaa Daarul Minnan ci kër googu nag la génnee àdduna ci atum 1966 ci bisub ne boobu ci xilaaf ak magam cheikh mouhamadul faadal mbàkke ibnu sëriñ tuuba xaadim rasuul doomam sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma moo ko taxawu rakkam sëriñ tuuba cheikh abdou xaadir mbàkke moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam ci pencum boppam di daarul minnan ci teewaayu nag mbooleem axlu murit gi moo tax soo delloo ci marsiye bi nga xam ne ni sëriñ maalik jëng defal cheikh mamadul basir mbàkke ibnu sëriñ tuuba xaadim rasuul mag ñuy wax nag lu takkoo takkoo takku ci dunduk cheikh mamadul basir mbàkke di ñu wax itam kan mooy cheikh mamadul Bachir Mbacke bis boobu mu génn àdduna di altine fukki fan ak ñaar ci weer wi nag di rakk ji gàmmu bisub keroog nag naka la murit yi meloon ci dëkk bu sell bii nag di Touba ginnaaw buñ ko jébbalee boroomam mag ñi wax itam nag heure biñ ko jébbal boroomam moom seex Cheikh Mamadou Bachir Mbacke ak itam ci pénc moomu ñu ko jébbal boroomam di péncum boppam di daarul minnan ci teewaayu nag kilifa yu takkoo takkoo takku ci taxawaayu nag sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma Cheikh Abdou Khader Mbacke nag mi rakkam moo ci teewaayu kilifa yu bare bu ñu dencee mu Mamadul Bachir ba pare nag nawet bi ci toppoon itam bekkoor boobu nga xam ne nii nawet bi itam defoon na ko nga xam ne nii ci at moom itam lu waaye bay daanaka dara ñorul tiis daal wu méttee méttee métti wu daloon daal ci ëxlu jullit yi rawatina nag comité bii ñu bokk muy mouridisme mbooloo mu baree baree baree bare bare mu fekkee saraxus Cheikh Mamadul Bachir Mbàkke lu yaatoo yaatoo yaatu daal la sëriñ Maali Jëng bind ci marché boobu nag mu defal Cheikh Mamadul Bachir Mbàkke ñu teewlu ko tey jile waaye ñàkk ko doy nag jaaxle xam ngërëmam min xablu doy addinaak mbanam gi war na mbàkke waraale gaaye askanoo ca kokki bis ba sëriñ basiiru génnee tuubaa fekk sëriñ bu mag ba sancoon tuubaa kajoor di jooy mbaakol ña a daanu waalo di walwali bawal ca kaanu góor ak jigéen ñépp di yuuxay werweri xoli jirim yéeg baayu yéppay warwari la dara biir jurbel ba yegg saalum ñépp a wedam ku nekk fàtte baaxam woto yi def ab soq mel ne màggal jooyoo bi dal kenn këlatul kam àndal sëriñ si ak dong yi ñépp a booloo di war fa rawta doom ba maa ko mëneefu ko misaal soo xalamee demuk rasulullahi ak saaba yi ak seex bamba doonallaahi xam ne la génn joojowaay fa tay ba génn sëriñ tuuba fa jurbel bis ba du bàyyi seex basiiru sax fa tuuba naqaru dem gi na sax bisam baa bis ba sëriñ tuuba rañaanee daaru jëm ndar muriyee ñépp bokk waaru ci xaama jay sa sin la mooy lilam ba lii tax mu fab saaxir sa ak baatin ba fajar ci rakki gàmm bis bay altine fukki fan ak ñaar mbir ma yegg na fu ne gox yépp yépp àndandoo di yuuxu góor ak jigéen yi mu làmbu ëpp na war na dammel yaag teeñ ya ak jaraaf ya war dong yaag waadula yaag kàngam ya war xulafaa u ya gannaaw rasuulu war na waroom ngir ya bu leen ko wóolu banoo umayata gannaaw sadiixu ak sayidul xumar may faarooxu yor nañ xilaafa ga di def di dindi ay xati xat xëy leen dindi banoo xabaas mbokkum rasulullahi yor nañu mbir ya ay xati xat lillaahi bar sàq xëy fab leen njaboot ga saawaan mbir yëpp yëpp nii la mel duy caaxaan bi bis la yàlla génne ruuga ko bar sàq mu dend ak ruuga tey soqi tey xawaare barsàq jël na waaju xam teraanga moo nuy fegal tey ak ëllëg yaraanga barsàq jël na waaju làq xam-xam mësula def xitteem di sàkkub xam-xam barsàq jël na waaju xam maqaama sat ba fooxa kuy borom maqaama barsàq jël na waaju xam xaajo xam yitte xam ngor bala ay saak saajo barsàq jël na waaju sopp bamba sopp rasulullahi may yoneen ba mësula def njombe du fecci wëllëre moo sell moo sellal wallahi moo gore moo yaatu moo tabe te moo dib docteur moo daa seral luy bëgg a yokk aw toor ku deeti bay ni mu dib liggéeyam fooxa doonal may ni te du ca dàcc mukk daawul naago loo gën a nax mu gën a tey gëm naa ko waa kër sëriñ bu mag ba moo leen boole di leen defal fu mu toll moo am doole yërëm na ndaw teral na mag xafal ko ci lu mu am te loo ko jox mu yëg ko jooy koonu war ngir li mu def ci réew mi mëneefu koo lim ardo yokkal meew mi li mbakki jooy foo toll dégg mu yi di ko jooy di boslu jumaahi jurbeel di ko jooy kaamil ba mag ja ko yor ci mbàkke jooy kamaal ba tiiba ngi jooy sun góoru mbàkke ku nekk jaaxle joojawaay moo asamaan yi juróom-ñaar lépp a ngi jooy jooju a ngi jooy weer a ngi jooy ba muuru biddiw gàncax gi sax xaru na taw bi manqué njanaaw yi ak garab yi doon a sakki li mbàkke jooy ngir xarita borom kun wéetal na leen ku sopp ngën ji yoon nen déglul ma wax la dem nga ndax nga waaru ci weeru diggiw gàmm mbër ma muuru aljuma ñetti fan yu teg juróom-ñaar la mujj julli ji juma nag waaru ba mu demee fekk na mbër may xutba alxaaji fàllu mbàkke ku sopp bamba mu daldi dog xutba ba ngir wormaal ko ba mu toog mu dellu baamu ginnaaw man yéem naa ko bañ sëlmalee la dem siyaare bamba ndekete day tàggoo ji ak ba jàll siyaare ji xalifa mustapha sëriñ basiru mbàkke naa la mustapha dugg wataam ba xenc pincum tuuba jëm daaru mi nan tey nurug baayam baa jumaayi tuuba daal di jooy ba xaaju ngir xam ne dootul jël si gëm naa waaju xoli borom basiri yëppay warwari dënd bi goy fetti janaaw yoy firfiri ba asamaan si saa yu xëynee nax saay muri yëpp jaaxle cay joojalawaay buur na yaari weer yu manqué tuuti ngir ko defal donga yi yëkku joote ci rakki gàmm la rasulullahi ànd ak borom tuuba bi ismillahi aji sub dibéer la ñëpp yendu Tuuba ñang naa ko nihmal habdi yaay aayuba di fukki fan ak benn guddig altine la ñu rañaan fabroga bis bay altine ku sikki sàkk lii na yor taarix ba ba yilimaan ja def ku sopp bamba fii la le til lus nay ni rabbunal xadaa la seyxinaal basiiri maa loxoor tadaa fii yebbi min saani rabihay wabsasin fii xaasirin saatin intu fattisin yi la bayit la def ba muy juróom-ñaar yàlla na fi des te wér lu yàgg dina waar bisub keroog la ñu yóbbu ruuga Tuuba te kër rasulullahi génne Tuuba koy dallal di teeru waa mbakke ak mbuso bi ñëppay waaru aljanna waaj di teeru roogay xiidu wahum ruhu ilal jinaani xiidu jundun minal malaayikil kiraami ñoo xàndandog jibrilu bistiraami di yóbbu ruuga waa xaras di sabbaa jigéenu xóoru xay ni ñëpp naa xaa ñu bi bunti àjjane naa tàbbi leen dalal ko bum xaajooti seex mustapha ak baayam ba ñoo koy teeru li furusin marfoxatin lañ fiiru seexi muri yëpp dew di juuru gës boog mu xaddimaat gëtëm ngay tu soo ko dóomul ak jibrilu ñoo jël si ruuga ahmadu maa ko wóolu ñu yóbbu ko aljana mu gis rasuulu ngir sopp gi ma sopp seetal loolu njagam ko sopp bamba mel ni doomam ca aw ca tànkam ya di xàll yoonam mëneefu koo xalaat faral yow noppi yàlla nañ ko sopp nun ba buñ koy toppi lii doy na waaji waaru war naa waaru ba xam biram ca bis ba ñuy tasaaroo gi guddi lañ ko rob ca péncum daarul minan xëjam ya yépp waaru alhaaji seex mbàkke donay seex mustapha moo ànd ga gëm na mustapha boppam xam na xinaaya te jëful jinaaya moo gore mbàkke mooy borom wilaaya mooy doomi Moustapha sëtub Seex Bamba moo tabe moo yaatu te xattan yen ba seex safa teew keroog mëneefu koo lim seex Moodu Xabbaan waaju sopp xaadim teew na fa seex Ahmadu Hawa Balla teew na fa ak rakkam ya sibtu Balla seex Moodu Maamun ñëw na ak rakkam ya seex Moodu Jobbe teew na fa ak jooyam ya doomi sëriñ bu mag ba ñépp a booloo bisub keroog tey la fa teew ci mbooloo seex Abdu Xaadir Mbàkke moo ko ñaanal sàppe sa di tànneef ku weddi ak saaba yaak yonen ba ak jibrilu ñoom ñépp a teew bi isnil baari ànd ak muhaajirina walansaari ca booba guddi lañ ko daal di sengal ku fa siyaar bur yàlla daal lay jéggal fekkoon na seex bamba defoon na jàkka min xablu jay sa sin mu jublu màkka sullu fa gaali téere def fa xamtu laajal ko xam ji wax sore naak fortu te ñeenti waxtu mbaalu manki tuuti lañu ko rob ci guddi googa neel ndaw joote ñu daal di dellu seeni kër taawam baa wéet na keroog ngir diggam ak baayam baa xibaar ba daal di siiw ba réewi gànnaar mbedd yi fot muy rab rab yi ngir xam ne gént na rongoñam yay sab-sabi dind bi lépp maasé mel ni gént kenn xamatul soxlaam ca booba jant murid la mbaab xaadir la mbaab tiijaan la ñépp a ngi jooy ngir yàlla mbaa ngir yàlla ci yàlla laa ilaha illa allaahu muhammadun arsalahul ilaahu salaa wa sallama alayhi l baaxi wa alihi wa sahbihi l atbaaxi adduna war nanu ci xaama wam sa sin dellu waraat murid yi xaama das sa sin dellu waraat nu ren ci xaama waf sa sin waram yi booy naagu mu daal di dellu si njagam sëriñ basiru bu gore doon tee faatu kon du faatu ngir ngor ga raw nam xel kilee ko yaatu ay xalifaam nag nii la tëdde moom cheikh mamadul basir mbàkke ibnu sëriñ tuba xaadim rasool kam fayam magam ja cheikh mamadul moustapha mbàkke di sëriñ moustapha basiru moo ko wuutu ci le premier août 1966 ba le 30 août 2007 ñaareelu xalifa cheikh mamadul basir mbàkke ibnu sëriñ tuba xaadim rasool mooy sëriñ muntaqa mbàkke ibnu cheikh mamadul basir moo ko wuutu 30 août 2007 ba nëgëni ñu koy ñaanal moom sëriñ muntaqa mbàkke suñu borom yàggal ko ci toogaayu cheikh mamadul Mamadul Bachir Mbacke ak mboolem ñu mu séqal Cheikh Mamadul Bachir Mbacke ndax moom sag la ci yoon wi Cheikh Mamadul Bachir Mbacke ibnu Sëriñ Xaadim Rasuul nag am na ay bis yuñ koy fàttaliku wala am na ay bis yuñ ko daa fàttaliku ndax bis bii mu génnoon àdduna di fukki fan ak ñaar ci weer wi nag di rakk ji gàmmu ak njabootam itam nag daa ko ci fàttaliku wala ba nëgëni sax ñu ko ciy fàttaliku màggal gi itam nag bëccëg rek la ñu wàcceel doomu Xaadim Rasuul jooju nag ay kaamil am na beneen bis nag buñ daa fàttaliku kii di Cheikh Mamadul Bachir Mbacke ibnu Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul taalibey Cheikh Mamadou Bassiri ak soppe Cheikh Mamadou Bassiri ak lenn nag ci njabootu Cheikh Mamadou Bassir gi ñoo demoon seeti nag jëwriñu sëriñ Bassiru bii nag di sëriñ Moustapha Bassiru di ko wax ne dañoo am bis boo xam ne nii dañ koo bëgg a taxawal di ci fàttaliku nag leen tax a bokk nag ci xaadim rasul di sëriñ Bassiru Mbàkke kii di sëriñ Moustapha Bassiru nag joxoon na njaboot gi nag ndigal ngir ñuy fàttaliku Cheikh Mamadou Bassir Mbàkke nag ci bis nag bis boobu nag mujjoon nañ ko bàyyi nag sababu bàyyi ko nag mooy dafa amoon menn at nag ci at yiñ ko doon màggal biñ koy màggal mi ngi fekkoon sëriñ Moustapha Bassiru nag ci toolam yi nekk nag ci waalo ginnaaw bu ñenn nag ci kilifa yi wooye kii di sëriñ Moustapha Bassirou nag di ko xamal ne lan moo tax muy màggalal sëriñ Bassirou Mbàkke te ñoom yëguñu ko sëriñ Moustapha Bassirou nag doon na leen xamal ne moom màggalulul kii di sëriñ Bassirou Mbàkke waaye lenn ci ñim séexal Cheikh Mamadou Bassir Mbàkke ñoo ko doon xamal ne dañoo bëgg a màggalal Cheikh Mamadou Bassir mu joxoon leen ci ndigal nag ñu di ko màggal lool moo tax nag yëgalu leen ko màggal gi nag du moom moo diriger màggal gi nag lool moo tax rek yëgalu leen ko sëriñ Moustapha Bassirou nag bëggoon nag lu gën a kawe lool nag ci rajo bii nag di rajo Sénégal ka doon jàng communiqué ba nag mu ngi doon wax nit ñi nag di leen xamal ne Serigne Moustapha Bassirou nee na màggalul lool loolee nag taxoon na nag ak pëccaxoo nag am nag ca màggal ga ndax moom nam jànge communiqué ba bokkut nag ni ko Serigne Moustapha Mbacke Bassirou binde woon ndax Serigne Moustapha Bassirou da doon xamal askan wi di leen wax ne màggal gi dëgg la de moom moo nekk jëwriñu Serigne Bassirou waaye màggal gi nag dafa amoon nag ñenn nag ci njaboot gi nag ñu ñëwoon nag doon ko laaj ndigal nag ngir nag di màggalal Serigne Bassirou mu joxoon leen ci ndigal waaye nag bokkut ak màggal goo xam ne nii moom ko jiite nag di ko màgg màggal loolu rek la bëggoon nag ak leeral nag ci communiqué boobu mu defoon nag ci rajo Sénégal waaye ki doon jàng communiqué bi nag moo xamal ne Serigne Moustapha Bassirou nee na màggalul màggaluwut loolu nag taxoon na nag ñu bàyyi bis boobu màggal gi gën a wér daal ci màggaluk Serigne Bassirou mooy màggaluk Poroxaan màggal googu kat danañ ci màggalaale maam ji di soxna jaaratullaahi moom moo moomu sos màggal ga itam danañ ko ci fàttaliku ñu ñaan ci doomu soxna Fatima du maan Jóob ja ke Serigne Touba woon ngën gi mbindéef sallallahu taala alayhi wa sallam ci turam wi di Cheikh Mouhamadoul Bachir borom fayal te yokk ay leeram te guddal nag fanu njabootam gim fi bàyyi moo xam góor ak jigéen ak mbooleem taalibey cheikh mamadul bachir yi ak soppe cheikh mamadul bachir yi lii di jafe-jafe réew mi itam yàlla na ko suñ borom saafara ci darajey muhammadul bachir amin muhammadul bachir amin muhammadul bachir amin muhammadul bachir amin muhammadul bachir amin muhammadul